c'est la référence. jàngeen euh, jëfati euh, ngeen ñuy toppandi ci juróom ñeent fukk yu tombal euh, benn kaddu gi delloo fi ci Medina Baye ngeen ñuy teewloo ci ay gox yu wuute te fësanti ko mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ceetu xabaar yi ci kàllaamay koccu ci yàttal bu ngeen taaxirloo tuuti rek ma jukki leen li ci gën a fës li gën a fës ci xibaar yi bokk na ca nag juróom-benn nit yi gën a ràññeeku fii ci diwaan bi jaarale ko nag ca la ñu tuddee top 6 xam nañu leen moom nag Mouhamed Ndiaye Rahma moo jël raw gàddu gi ci atam 2021 bi eh, ci lépp lu aju ci wàllu social di ndimbalanteeg njàppalante lu ni mel nag di xalaatu waa Dakar Actu daañu dégg Moussa Fall ak Cheikh Tidiane Diagne xam ngeen ni nag campagne électorale bi eh, ma ngay wéy rek fii ci diwaan bi eh, candidat yi nag ku nekk di fëgg sa dënn fësal programme boole koog itam nag dagaan baatu askan wi ndax dagaan baatu askan woowee nag jar na fitna wa ilaa yi tamit rek di wax lu mënta nekk lu mu ci mënti doon nag ak ak njàngat lu yaatu lay doon ak soxna Ndeye Fatou Cissé waxtu woowu itam nag Africa Jom Center ak kuréel gii di Oxfam ñoom nag ña nga doon amal rek ab ndaje fii ci diwaan bi doon waxtaan ak candidat yi ci jafe-jafe askan wekk seenu ko programme lu ni mel daañu ko yaatal ak Cheikh Babacar Dieng bu di lépp yembe mbokk yi daan ca teg xabaaru bitim réew ak Alioune Badara Diop tàggat yaram ak Serigne Moussa Kane li ci yéene kaay yeeg El Hadji Seydina Oumar Cissé mu nekk li gën a fës ci xibaar yi nes kiis ñu faram-fàccee le journal Ngoné Ndiaye moo nekk ci euh, waxukaay gi fego ci code sec kenn ci wàllu xarale gi kàddu gi jàddoo fii ci studio Alioune Momar Lo euh, taaxum kaw ma ñu duppee Cheikh Imam Assane Cissé dal leen ak jàmm ñu doore ko nag ak na ñu leen ko junjee la ñu tuddee nag topp 6 ak ak joxoñ la ngir nag kenn ku nekk rek gën a jëfal Kaolack bu ñu sukkandikoo ci Moussa Fall mi xalaat mbir mi moom nag ndawal Dakar ak ci boobee daal la mu gis mooy ne Mouhamed Ndiaye Rahma moo jël raw gàddu gi ci wàllu social Cheikh Tidiane Ndiaye. bokk ci top 6 bi nga xamante ne ndawal Dakar Actu fii ci diwaanu Kaolack moom moo ko daal di moom Moussa Fall gannaaw bi mu ko tabee mu nekk ci bopp bi def na ay jéego yoo xamante ay jéego yu am solo la bu ci jiitu mooy ñi ngi fàttali ne Kaolack barki Demba Ndiaye am na benn accident bu métti bi fi benn camion malien moo fi mbëkk benn taxi mais gouverneur da cee joué rôle bu am solo gouverneur également mi ngi ci Covid bi def na ci rôle bu am solo ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi ñu mën a def li ni mel. Serigne ci ñetteelu place bi Adja Moussou Korombay Khadijatou Sar Kébé ak Fallou Kébé ñoom ñëpp nag ñu ngi ci top 6 bi nga xamante ne def nañu ko bu ñu sukkandekoo nag ci moom mi nga xamante ne mooy initiateur bi di musa Fall nee na li nu mel dañu ko daal di teg ci mbiru dimbalante waaye tamit mu def ko ngir suqaleku diwaanu Kaolack. donc en troisième position ku ci topp mooy Serigne Mboup mu ngi dugal loxoom ci poosam di jàppale ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw et en cœur de ville un point d'attraction pour les Kaolack waa Adja Moussa Koro Mbaye barki Demba Ndiaye lañ ko def ndeyu daara directrice hôpital Kaolack tey c'est lu bëri des na ci hôpital bi mais wax dëgg fa yàlla tey soo demee hôpital da nga gis changement da nga gis benn cadre boo xamante hôpital bu ñu tegoo mel noonu ku ci topp mooy président ASC Saloum nekk Fallou Kobé nekk ndaw gëm ne mun dugal loxoom ngir suqal li nga xam ne mooy fubalu Modou Ndiaye nga xamante ne moo jël raw gàddu gi ci diwaanu Kaolack nee na li nu mel da koy gën a ñaax. bu saytukat du saytoo wala xelkat yi xellu ba jàpp ne lii yow yaa ko yooyoo loolu dèjà dafa nekk sas boo xamante ni war ngaa bàyyi xel ci sa bopp ci ne am na yu bari yoo xam ne waratu la nit bu doxee ci àdduna ba yegg fenn ba ñu bari di ko bàyyi xel dafa war a fexe di wane ay jikko yu sell dafa war di fexe di wone wala di xool wala di gis wala di dox ci loo xam ne ku ko ca engagement la ak itam gën a takkaayu xam ne li Kaolack di xaar ci ñun bari na ñu bañ a fexe ba tas yaakaar yooyu. top 6 ci atum di ñi gën a ràññeeku ci wàllug social fii ci capitalu Saloum bu ñu sukkandekoo nag ci kàddu Moussa Fall nag nee na décembre 2022 wala janvier 2023 ci kàttanu borom bi dina ñëw ci yeneen i anam. Jokko Jall Cheikh Tidiane Diagne moom nag musa Fall moomee ma ngay wax ne daal doxalin bu ni mel nag daray politique lalu ko la waral tabeefu Modou Ndiaye Rahma ñu ko na ceek Cheikh Tidiane Diagne. danoo toog euh, xayma saytu xool liggéey bi nga xamante ne kilifa yi ñu def ku ci nekk euh, euh, maanaam effort yi ngay def pour jàppale askan bi parce que Dakaractu soo gisee mu def li nga xam ne mooy top 6 bi sondage bi parce que ñun ñu gën a mooy kilifa yi nga xam ne jege leen seen askan parce que aussi mënoo di daggaan baatu askan bi wala ngay laaj leneen ba ne du jàppale askan bi loolu mënta nekk ñun da a taxaw pour jàppale ñi nga xamante dañoo nekk dans le besoin dañoo am soxla dañoo am ay jafe-jafe loolu nag euh, bañ ko xoolee saytu ko ñu gis ne Mouhamed Ndiaye Rahma ambassadeur itinérant te amul daray politique nag moom dafa nekk kilifa ci lu muy dugal loxoom fii ci diwaanu Kaolack amul benn kilifa bu ko am taxawaay bi ni mel moo tax nag Dakaractu euh, choisir ko année def ko muy homme de l'année la première personnalité bu nga xam ne moo nekk ci Kaolack di jàppale askan wi parce que gis nañ ko mi ngi dugg ci koñ yi ci gox askan wi di leen yóbbul ay ndimbal rawatina ci li nga xamante mooy jamono yi coronavirus bi ñu nekk mu dugal ci loxoom bu baax a baax ngir soulager li nga xam ne mooy askan wi Dakaractu nag lu ko gën euh, soxal mooy askan wi parce que suñu waxee affaire information je pense que tey ñun suñu rôle mooy fexe ba informer la population mais fexe également ba ñaax ñi nga xam ne ñoo ay kilifa pour que ñuy bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo askan wi te loolu moo gën ko yokk a noonu day participer ci li nga xamante ne suqali dëkk tey loolu moo tax tey Dakar ak choisir Mouhamed Dia Rahman def ko homme de l'année. Moussa Fall kat ngeen na rek xelaat bi boole di wax ne itam ndimbalante dimbalanteeg jàppalante nag lu war la rawatina fi jamono toll nga xamee ni itam jafe-jafe yi bari na Mouhamed Ndiaye euh, rahma ak Cheikh Tidiane Diagne. waaw xam nga jamono bi ñu toll dafa xaw a jafe tuuti Cheikh am na ku gis ne sax buntu këram jago waaye li ñuy wax doomu aadama lépp lu muy def lu nekk da koy tal moo doomu aadama ni ko yàlla bindee mënut a yendu ci yenn jafe-jafe yi moo tax toujours damay bàyyi xel ne Kaolack Saloum li war a jiitu ci action yi mooy social parce que social mooy tax jafe-jafe yenn doomu aadama yi nekk a sentir ne ñoom ci société lañ bokk faju yi nga xam ne munta ñàkk bu munta ñàkk ñu mën a gis seeni frère yoo xam ne ni buñ jaaxlee mën nañoo leen yaakaar ñu gis seeni frère ne lépp loo xam ne ñi ngi ci soxla ko dañ gis seen frère yu taxaw seen wet ñu mën a gis ñoo xam ne ni itam am nañ yërmaane wala sentir nañ population bi bu mën a jël lépp luñ am def ko ci seen biir loolu moo tax ñun social duñ ko kafee ci social dafa nekk lu am solo ci réew dèjà da nga ci am sa diggante ak sa borom waaye da nga fexe tam ba nit ñi ñoom ñëpp sentir seen bopp ci jàmm parce que réew mi li mu bind doomu aadama yi yemalewu leen li mu bindee doomu aadama yi ñàkk leen a yemale dina a yemale lépp lu jëm ci affaire koom-koom moo bii ñu toll mooy ne sa njulee na nit ñi am na fi ñoo xam ne am na yàlla baal sax ci wax ji ngay gis ñoo xam ne bu ñu ayeñee duñu reer buñ reeree duñ dékki xool ñoo xam ne mën nañoo toog journée lëmm duñ lekk yooyu yëpp nga xam ko ci mu leer na la buñ la ko waxootu xam nga ni ñii moom ci loolu lañ nekk nga toog di leen seetaan bu dee ab julli nga te sa njuli des moo tax ñun toujours dañ jël social def ko ci kanam dañ jël social def ko ci lépp luy dugg ci diggante bi nag xayr waaye dañuy fexe daal social nekk ci kanam social nekk ci ginnaaw pour fexe population bi sant seen bopp ne am nañ seen doom yoo xamante ni ñi ngi fi nekkee wuñ fi lu may taxaw ci seen wet pour mën a fexe seen jafe-jafe yi mu wàññeeku. que duñ ko wéyal duñ ko continuer. oui mu yokk parce que maa ngi jàpp ne incha allah liñ jëm muy élection bu ñu yàlla mayee ndam comme ni ko ñëpp xalaatee ak comme ni ko ñu foolee social bi dana gën a yokk te yeneen liggéey yi moom la Kaolack di xaar yooyu itam incha allah dara bi gën a yaatu gën dox parce yaakaar naa ne ñëpp mën nañoo seede ne social liggéey nañ ci lu am solo ci at yi loolu ñu ci liggéey nag dama yaakaar ne xanaa kenn xalaatu sax di ko wàññi xanaa yokk lañu wax ñu fexe ba social boobu gën a yaat biir réew mi rawatina ci Kaolack ba Kaolack waa yëpp sant seen bopp incha allah. yéen a déglu xibaar yi ci Alfayda FM ñu wëy euh, ba tey ci euh, jukkim xabaar yi ci kàllaamay koccu ci yaatal daal di àddu nag jëmee ci ponk bu yaatu ba ñu jagleel wàllum euh, politique jaarale ko nag ci campagne électorale beeg jotaay ya ñuy amal ci Alfayda bokk na ca nag seen émission hôtel de ville dalaloon na rek ni ki démb nag waa coalition Yewwi Askan Wi bu Kaolack waxtaan ak ñoom ci seen ko programme Mamadou Lamine Ndiaye may seen directeur de campagne am na lum ci xamle ñu taataan ko. leneen li nga xam ne ni bëgg nañ ko mooy ñu Kaolack waaye ñu mën a dund ci jàmm mais mën a am seen naataange ci fii ñu dëkk leneen li nag mooy ñu am un cadre de vie et prospère cadre de vie et prospère yaakaar naa tey koo laaj ci Kaolack seen priorité mooy naka la ñuy fexe ba dëkk bi set wecc leer naañu parce que problème mu mbalit problème mu salubrité yàgg nañ ñu ko posé yàgg nañ ñu ko te boobu léegi amul benn solution mais loolu yëpp nag ñun bi ñu defar suñu programme également comme que code général des collectivités territoriales moo définir neuf domaines de compétence neuf domaines de compétence yooyu maire yi mënu léegi il faut que nga justifier ko au préalable que ne lii ma mën a liggéey bokk na ci compétence yi nga xam ne loi bi reconnaître na ma ko donc ñu neuf domaines de compétence yu lañ jël bu nekk ñu tas ko bu nekk ñu wax ci mandat bi di ñëw lii ci comme c'est un de cinq ans dañ bëgg lu nekk ñu jël ko ci at bi ba keroog ñuy jeexal suñ mandat ñu mën a wax que ni lii la ñu kaw la ko ay dénk ko lii lañ leen digoon ne danañ ko def gannaaw buñ noppee quoi yoo jël fukk yoo jël juróom-ñaar am nañ problème suuf problème suuf mooy tey jii leen jox benn kayit bu yoone que ni lii ci suuf ñoom ñoo ko moom mais buñ demee fekk na ko keneen keneen ak keneen ma ne ko litige foncier donc ñun suñ programme dañ buñ ñëwee bokk na ci mesure yi njëkk a jël mooy on procéder à un audit du foncier municipal. Euh, càmbar wàllum euh, suuf boobee nag ak lépp li ci aju rek doon lu leen yitteel bés bu jotee euh, maire bi ñoom waa ñuy teewloo. audit foncier bi boobu ñaar moo ko tax a jóg li ci njëkk mooy comme que maire bi tey dafa bëgg dugg ci ay investissement dafa am lu bëri bëri xam ne war nañ ko mën tabax war nañ ko mën a mais bala nga naan naam day fekk ne fa donc il faut ñu xam maire bi tey jii lu ci jiitul seen bopp seen priorité la problème marché Médina Baye nii ni posé na il faut ñu xam loolu naka la demee naka lañ joxee suuf yi loolu yëpp foog ñu xam naka naka la demee leneen li nga xam ne tamit ñun def nañ ko suñ programme mooy lépp loo xam ne nii c'est nouveau lotissement maanaam suuf yoo xam ne dañ koy loti war ko jox population ne dañ koy accorder mooy kan mooy ki nga xam ne nii doomu Kaolack la Kaolack la juddoo Kaolack la yaroo waaye dem na ba am 30 ans bay waaj jàpp 50 ans te amul benn lopin de terre te dañoo gis que ni fii à chaque fois bu affectation de terre amee ñi nga xam ne ni nga xam ne ay doomu Kaolack lañ fii lañ juddoo te bëgg nañ am kër bëgg nañoo tabax Kaolack di loo xam ne nii suuf bu ñu joxee di Kaolack la dinañ na Kaolack waa nga te mosu am suuf ko ba pare leneen li nga xam ne bëgg nañ def mooy ci wàllu marché public parce que maire bi également day liggéey day def ay marché mu nekkoon Mamadou Lamine Ndiaye directeur de campagne bu coalition yeewi askan wi fii ci diwaan bi ca garage Liberté di garage Dakar bu Kaolack foofee nag waa coalition Benno Bokk Yaakaar demoon nañu fa rek nag ngir daal di campagne daamloo ma fay seen ak buntu nag woon ay mbokki chauffeur am ngir rek ñu daal di woteel Mouhamed Ndiaye Rahma kaddu yu mu jibal mi ngi ci micro Serigne Gueye. nit bu bokkee fenn daf koy wane jëfee ko te ñun xam nañ ne. Modou Ndiaye mii góor la jàmbaar la am na wax yoo xam ne nag ay nit dañ koy nit dafay am fula nit dafay am jom maa leen di xamal ne leen du nit ndax niw loolu ay naxaate la fii lañ defar affaire député waxoon naa leen ko ngeen di ma seetaan ba wooteel keneen ñu gàñe ma ngeen taxawaalu di mat seen loxo loolu leen dalal laay bañaan mu dalal leen da ngeen wooteel Modou Ndiaye Rahma ma bokk ci mairie bokk ci conseil mun a am doole waaye bu ngeen seetaanee la leneen bu ëllëgee ngeen koy rëccu rek nit du rëccu ànd ak kilifaam di jaar feneen day bëgg boppam nit day bëgg boppam na aade dafa xewi carte bon njaay baa ngi lii lii mooy benn bokk yaakaar bu boobaa da ngeen ko jël dugal ko ci urne yi Modou Ndiaye jël mairie Kaolack yéen a ngi nii gaaras Dakar bii bu doon état du defaru te ñu ngi ko defaral ba léegi ñëpp a ci dox di dem di ñëw kon maa ngi gërëm le président Macky Sall di gërëm ministre Mansour Faye bi ko defar waaye su jàmbar ji am naa ci moom yaakaar bu rëy damaa bëgg ngeen jàppale ko wooteel ko mu jël mairie Kaolack. Dame Lo ñu jógee nag foofee nga xamee itam nag moo di ca garage yu Dakar daal di dem nag ca garage yu Nioro foofee itam nag ko jiite rek woon na ay ñoñam ngir ñu voteel moo Ndiaye Rahma ndaxte itam nee na nag moom rek moo leen yàgg fekk ca seen i jafe-jafe tey soog a ñëw Papa Babacar Ndour moo ni waxee ci micro Serigne Gueye. jamono Covid bi ndimbal yi mu def moo ñu jëkk jox savon eau de javel madar ak ay masque ak lu muy àndal mu delluwaat ba ndimbal la ngeen moom mu joxe xaalisam joxe ceebam waaye su ma koy jox war naa wax mu xam ne yegg na ci sëfër si donte xam na ma kon moon yaay wax ma ñun amuñu fayam koo xam ne nag ma la doon dimbali ma nga doon jàppale chauffeur te booba nekkagul maire wuutagul maire xalaatagul maire su demee ba doon ko wax dëgg yàlla sëñ ñu am yaakaar bu baax ne suñu soxla lu ci bëri dina faju garage bii ñu nekk tey dox na ca la def na ca la mu man loo xamante ne tene ma maa ngi ciy jokkoo ak moom mu ngi ma ciy jàppale yaakaar naa ne ceebu Kaolack ba mu tagee Dakar sept cent et quelques saaku ceeb mool Ndiaye ci moom laa jaar ba yàlla def ma jot ko kon mool Ndiaye ñun amuñu sa fay lay ñaanal yàlla mu bàyyi la waaye ñu ñaan yàlla le 23 janvier balaa 4 heures fekk carte bi leer na nañ te incha allah lay demee chauffeur yi ma bëgg ngeen a a am prêt banque jënd oto amul chauffeur yëpp booy apprenti sax xam ne ñu ne dafay prêt ba am xaalis si banque bi jënd oto kon mu ñu kenn naaxee loolu oto ñun yàgg nañ koo am oto kenn ku ci yéene ci yéen am na ko te jaaro ko ci man jaaro ko ci kenn dem amal ko boppam yaakaar naa kenn jëlu fi ay oto maye ko kon tey jii du ma tur waaye bëgg naa seen bopp yi dara ne ci Mohamed Ndiaye Mohamed Ndiaye yal na la yàlla fay sa taxawaay ci ñun xam nañ ko garage a dalee na ko ci dañ la defaralee ba war a defar fii ci ginnaaw fi oto yi gaare yàlla def na mujj la pare. Pape Babacar Ndour ca garage boobee nag la ñuy duggee woto rek daal di wutali ji nag Kawsara Fall foofee itam nag Pape Mademba bi tey ma nga fa woon ca kanam sang ba Serigne Mortala Fall ngir sàkku ñaan waaye tamit nag sàkku ndigalam ci njaboot gi ngir ñu woteel leen Pape demba bi tey ay kàddu yi mu rotal mi ngi ci micro Serigne Gueye. maa ñoo fi nekk di suñuy waajur di suñuy kilifa ñànk diine bi ñu am ak ñoom relation yi nga xamante ne nii wax dëgg yàlla des fois sax suñu yaram day daw buñ ñu waxee nuñ ñuy suivre buñ ñu waxee luñ ñuy defal si ñaan dégg ngeen bërki démb sama sëriñ imaam Cheikh Tidiane Cissé lu mu wax si diggante bi ak mën njaara ñu dem keroog si yeneen këru diine yëpp ngeen dégg lu ñu wax kon bu yàlla defee nag élection man dama daan ñëw fii ndaxte sama xarit la sama waajur la sama yi ren nag ñu bëgg ñu ko ñëw ñu ne ñu dafa dem Touba moo taxoon ñu xaar ba tey jii nii mu woolu ñu ñu ñëw si comme niñ fi daan ñëwee tàllalaat suñuy loxo pour mu ñaanal ñu tàllalaat suñuy loxo aussi mu boole ñoom njaboot ndaxte xam ngeen ne moom macha allah njaboot bi yaatu na lool biir kaw la chaque fois bu ñu nekkee si jongante yi en terme de mobilisation en terme de vote dina jox ndigal njaboot gi yëpp mu ñëw suñu ginnaaw jàppale te xam na ne bi nekkee mooy ndam moo tax tey jii nii daal dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax man ak Modou Ndiaye nag ñoo waroon a ànd si fii mais xam nga nag dëkk bi tey fu mu toll il faut ñu wër ko ndomba bu nekkee fii ma nekk fa loolu moo tax nag tey jii nii ñu dafay noonu pour mun a maaye kii bi bu baax waaye ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di sant sëriñ bi di ko ñaanal yàlla yàlla may ko wër yàlla guddal fanam ba mu yàgg continuer suñu accompagner ci ñu def gannaaw wax joojee naka sëriñ ba jibal na itam rek ay kàddu ngërmande ki ñaan lu ko jiitu nag mu fàtt fàttali leen Kawsara taxawaay bi ci njiitu réew mi am te mu yaakaar ne itam ñoom daañu ko àggali matale ko Serigne Mor Talla mi ngi ci micro Serigne Gueye. ko wax ak ministre bi ñu ngi ko Kawsara Fall képp ñu ko maye ndox ñu ngi ko bàyyi dee ndox ba ñu ngi yoo xam ne ñu dëkk ci mar wala ñu dëkk courant ñu gis eh, gisoon seen bopp ñu génn moo xam ne ñu ñoom la day ñooroon am léegi courant am léegi ndox te ñoo amul ñëpp ñu xam ñu woon te ñun expliqué lu tax président mooy wax de waaw mu wax loolu ñu si gën a xoloo kon bu leen ko woon ginnaaw mukk mukk te yow heure bi bàyyiwoo kaw sarafal ba mu jeex tàkk bu fa bàyyi benn roq yow mu yore ndox mi bu fa jógee mukk te bu fa bàyyi benn roq ci ndox président de la république moo wax loolu keroog maa ngi toog ma ne te ëllëg ko xamante ni naa ëllëg sa ngay xëy ci dikk fekk te jëmoo kër kër gi ci service bu nga ne lii la nañu ni kaw sarafal ah comme day sama kaw sarafal ak <laughs> waaw waaw dégg nga bu fi nee nag ah waxu moo dara président ñoo ko liggéey waa xam ne ñu ko seqal dina yéegale yëpp rek rek la waaw ah, te xam naa ne dina yéegale yëpp ko la cay war ci sa waru kat le président waxee bu waxul yëpp xam naa ni comme fii la ñu ngi ci wax yëpp di ngeen ko def yaakaar naa doogay ci maa ngi yaakaar a baax maa ngi lay fàttali ko rek lay fàttali ko baax rek waa tam ka dañuy màggalee mbooloo ak la ñuy fekk gis nga daara ji moom toll léegi ah nee na ñu ngi ànd ci biir ziyaara bu baax a baax ñaan ci ma lay fexe rek nii nii rek incha allah bu soobee yàlla di ko am. waaw dama ne bi nga yit bi waaw ah sëriñ bi am xam nga sëriñ Tuubaa dafa wax ni Ibra Faal de li ma def ci moom dafa maa rëccu ñu ni ko lu tax mu ne Ibra Faal dama ko doon mbaq ci yàlla fa mu dugg ci biir fa ci dugg yàlla foo xam ni dafa ko faa génnee ci xol yàlla voilà dama ko doon mbaq mu dal ci biir yàlla dugg ci biir xol ba kon Cheikh am na yàlla ba ki euh, jéggalu bu baax nag ci qualité wu élément euh, boobee ca kaw saxafal sax naka fa la ñuy euh, des ba tey ndaxte itam nag waa coalition ànd nawle ànd liggéey ñoom itamit teg nañu fa rek seenu ko tànk waxtaan ak askan wa rawatina jigéen ña jëmee ci seenu ko yéene ci dëkk bi ak it ñoom ban taxawaay la ñu war a amal ci jongante ngir ñu daal di bokk am ndam Serigne Mboup kaddu yamu rotal ñu teewlu ko. jóg pour ñëw jàppale Kaolack olof nag li muy wax ndimbal na ca fekk loxol borom su ma ñëwee ba ñëw ci yéen yéen da ngeen di jóg dugg ci koñ ji kër dugg wax ñoom ñu engagé wu ci projet bi projet bi mooy seetal dëkk bi suqali ko sàmm ko seetal bi mooy defar ko ba nga xam ne nii salte bi dana fi jógee assainissement bi ñu defar ko suqali ko ba nit ñi am liggéey jigéen ñi am financement sàmm ko ba nga xam ne nii sécurité dana fi am léegi nag politiciens yi nga xam ne nii dañuy ñëw a poste nga xam ne ni ëllëg ñoom bu ñàkkoon ni élection duñ tekkeeti dara wala leen jaawale ñi xam ne ñoo am liggéey ñëw pour bëgg leen a jàppale yéen yéen a mën a jàppale seen bopp kon nag ñi leen di ñaan ngeen jóg dugg këraw kër fii ngeen fexe su ngeen di wote ji ngeen génn dem wote ji groupé e def lépp ndax kenn ku ne sa moroom waru laa gën ndax li tax waru laa gën mooy bëgg gi bëgg dëkk bi bëgg leen ko lu def noonu di gërëm tafaaje bu baax ci taxawaay ak njabootam mu nekkoon ay kaddu Serigne Mboup askan wa mu fekk ji woon nag xamal nañu ko ne foofe itam di Kawsara nag ay jàmbaar yu bëgg liggéey ñoo fa nekk te it nag bu leen jàppale ñoom itam daañu ko jàppale seeni kaddu mi ngi ci micro Serigne Gueye. parce que fii ñu nekk ay doxandéem ay néew gi doole fekk fi dëkk kenn ku si nekk fi nga dëkk tey sa dërëm defoo ko fi dala koo may te yàlla rek tax nga ñëw defar fi dëkk fi ak sa njaboot ndax ñu ñëpp dañ doon kon ñu koy ñaanal yàlla fi yàgg faal te wër Serigne ñu ñu rek dinañ la jàppale jàppale nag ba nga jot si meer Kaolack bii si kàttanul yàlla kenn ku si nekk fi nga taxaw li nekk si yow rek ngay wax kenn ku nekk sa carte bii su soobee suñu borom dañ la ko sànnil li nga bëgg yàlla ko yàlla defal mais nga jàppale jeunesse bi jàppale ñu liggéey parce ñu nekk fajar jàppale ñu liggéey yow nag boo ñu jàppale nañ la jàppale parce que nañ la jàppale ñu jawat gi nga fi nekkee ak néew gi doole yi kon yal na la jàppale yaa xam li nga bëgg yal na la yàlla bay parce que li moom la moo ñu oo groupé ñu nañ formé mbootaay jàppale sëriñ buub parce que bu ñu soxore woon du ko def mais soxore dañu bëgg jigéen ñi kaw liggéey ko ñun ñëpp nañ jàppale Tafa mu jàppale sëriñ sëriñ bu keroog le 23 mu jël mairie Kaolack si kàttan yàlla yàlla ko sëriñ Fallou def ngeen di uh, wéy ba tey nag di fi taataane ay xibaar yu uh, wér uh, te woor des ba tey ci wàllu campagne bi candidat yi nag ku nekk rek ak na muy defee campagne am porte à porte visite de proximité ba ci wàllu meeting lépp rek nag ngir daal di dagaan baatu kan wi fësal seenu ko programme mu soxal nag wàllum ëllëg ëllëg googee sax nag laaj ak ak jàngat ndax it nag du añ du reer waaye lu mat a sédd la ci rafetal soxna Ndeye Fatou Cissé. campagne bi commencé na Benno Bokk Yaakaar na yéen xam ngeen ne du moromu benn coalition fii ci réew mi. mën nañ ko mënuñu ko imaginez Kaolack. kuy ñaan gudd fan ku ne war a dëkkee rafetal ndax bësa ngi si bés yi candidat yi dagan baatu kan wi jamonoy campagne gilee te nag war a dugg fu ne kon sens interdit waru caa bokk xam nañu ci dara. naa di sant yàlla rek ndaxte yàlla dimbali nañu nii nga xam ne ñoo ko nekk ci suñuy waajur suñuy kilifa ñànk diine bi ñu am ak ñoom relation yi nga xamante ne nii wax dëgg yàlla des fois sax suñu yaram day daw buñ ñu waxee nuñ ñuy suivre. campagne bi door kon. tamit conseil mun a am doole waaye bu ngeen seetaanee def leneen bu ëllëgee tamit rek nit day bëgg boppam nit day bëgg boppam na aada dafa xew. diggante samedi ak tey jëlee candidat yeeg seen ñoñ di fësal seen i kàddu ay kàddu yu yóbbu nit ñi fu sori. yàlla daf ne man du soppi mukk xéewal bi ma leen xéewalee tant que soppiwu leen yéen ni ngeen di doxale moo tax buñ soppee tegu ci yoon rek mu ñëwaat mu dem ci cadre bi ñuy wax suqali suqali mooy sant bi d'abord santé mooy il faut que Kaolack bu ñu xëyee ko man li ma gis Chine boulevard yaatu na na mag ñi xale yëpp di doxantu ñu defar ko ba mu baax mu nekk cadre de bu baax voilà Kaolack tamit génne compétence yi xoolal tey waxuma la xam-xam bi nekk Kaolack soo demee tey dakaar wala ci àdduna bi soo demee ñi yor Google ñi yor ay Facebook ñëpp ay doomu Kaolack lañ mais ba léegi fi ne nii Kaolack waa yaa ngi fi compétence yi ñu génn ko culture fii la Youssou Ndour taxaw ne culture Sénégal ci Kaolack la juddoo économie bi tamit boo demee Sandaga waa Kaolack rek a fa nekk journaliste yi tamit xam nga li ma la wax possibilité yëpp jàmmi gox yi jug pour ne dana góorgóorlu fuglu pour que ndawu Kaolack ñu pour ñu defar suñu gox loolu moo tax a jóg jàmmi gox campagne bi nag bañ ci duggee léegi programme lañu indi suñu programme bi ñu ngi ko nattee ci ñett ponk dox jàmm naatal ak yëkkatiku ngir yëkkatiku kaw la bu nekk ñëw dem ci terrain bu la jaar ak ak fësal jëf fa bàyyi wax ca kanam lay doon gannaaw kon ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier di bésub élection yi jamono jile kon nag jamonoy wax la mbaa sax mu ca ëpp ndax campagne électorale lañu wax wax kon nag dégg-dégg ba da cee am solo. nit dafay yeewu nit dafay am fula nit dafay am jom. fexe tamit population bi comprendre ko bu baax a baax a baax. jaajëf soxna Ndeye Fatou njëlbeenu euh, xibaar yi euh, kuréel yi di Afrikajom Center ak euh, Oxfam ñoom nag ña ngay amal rek ab tournée ci Sénégal gi yëpp Kaolack nag ci dëkk yi ñu tànn ca la bokk ñu ngi fi woon nag doon waxtaan ak candidat yi ci wàllu programme ak yorinu bokk moomeel yi Ndeye Diagne madame Meng moo yombaloon ndaje ma Cheikh Ababacar Dieng. Afrikajom Center ak Oxfam ñoo amal xalaat bi taxawal ko tànn ay dëkk di ko fa amal Kaolack nag ci ville yi ñu tànn la bokk candidat yi laaj mairie bi yëpp lañ dajale woon ngir ñu waxtaanee waxtaanee jafe-jafe Kaolack ak ñoom lan mooy seen programme ëllëg gën a ñoŋal dundinu askan wi Ndeye Diagne moom société civile la bokk nekkoon nit ku yombal ndaje gi am ci diggante ñaari kuréel yi. dem nañ Ziguinchor dem nañ Saint-Louis dem nañ Mboro ñuy ñëw Kaolack tey près Dakar la ñuy tëjee ñu ne loolu dafa am solo li tax mu am solo ndaxte dañu ne collectivité territoriale la ñuy wax ku bëgg dëkk bi dëkk si dëkk bi da nga bëgg dëkk bi dañuy ne nit ki sa loxo population bi li ngay laaj ñu jàppale la ci ndaxte jàppale wuñ la si sax seen bopp lañ si jàppale. fi la organisation yi nga xam ne bokkuñu ci gouvernement bi xam leen ne Kaolack moom war naa romb fi mu nekk nii bu yàgg li leen gën a métti nag mooy suuf si nga xam ne dañu koo séddoo ba noppi caxat caxatee ko équipe municipale bi ñëw ginnaaw la 23 janvier da cee war a taxaw lii leen day jaañ wax. nekkuñu si présidentiel ñun si gox bi dañoo bëgg ko defar nit ki maanaam Kaolack dëkk bi si espace public boo xam ni vraiment da nga fay romb di sa xol naa foo romb si dëkk bi rek da ngay mer ndaxte dañoo séddoo suuf si te du loolu Kaolack mooy ville centre. lu jëm nag ci code électoral bi nga xam ne dafa ëmb doxalinu gox goxaat yi candidat mbaa candidat bu nekk da nga koo war a mokkal ndax nga xam ëllëg buñ la falee fooy teg sa tànk lii la société civile bi wax. ñu ne ndaxte fi mu nekk nii dafa am texte de loi yi nga xam ni la loi numéro 2013 10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales te ñoom gis nga code général boobu candidat yi dañ ko war a maîtriser ndaxte lépp la ëmb wante bu ñu ñëwee di wax ay maanaam programme boo xam ni c'est pas ambitieux ndaxte cinq rek lañ am juróomi at lañ am pour wax fi lan la ñu war a def si gox bi. bu ñu xool nag Kaolack juróom-ñaari liste la am yuy laaj bopp commune bi ngir wutu Mariama Sarr ndaje gi ñu wootoon ngir daje candidat yi nag ñaari candidat rek ñoo Rose Wardini ñëwoon na Fadel Barro mi jiite coalition Jàmmi Gox yi it mu ngi woon ci bile lël bu dee coalition ànd nawle ànd liggéey bu président Serigne Mboum nag Ndeye Lobé Lam la ñu délégué woon coalition Benno Bokk Yaakaar yi docteur Aline Diouf moo leen fi teewal yeneen ñetti candidats yi nag di waa Yewwi Askan Wi ak Babacar Lo Ndiaye ak Ndeye Khady Diop ñëwuñu ñu fa na li a fës rek mooy nag jafe ñu ci Kaolack candidat yeeg ni ñu ko a wàllu programme ak budget Alioune Tine njiital Africa Jom Sant mi ngi ci micro Cheikh Ababacar Dieng. Euh, waxtaan wi nga xam ne dañu ko indi jagleel ko ñi nga xam ne ñooy candidat yi nekk maire pour ñu wax ñoom lan la ñu nar lan la ñu bëggal Kaolack Kaolack moom boo fi ñëwee dëgg dëgg bu ñu waxee environnement rek pollution ci hôtel bi ma ñëw boobu da nga ñëw rek xet gi ce qui veut dire que problème mu bi jëkk mooy assainissement mooy cadre de vie boo xam ne citoyen bu ca nekkee day neex boo ñëwee Kaolack poussière Kaolack amul tey ak li ñuy wax le changement climatique ci Kaolack bu tawee doo xam nooy def am na ay béréb yoo xam ne boo ko gisee sax da ngay waaru donc question yooyu yëpp la ñu war a wax yéen ñi nga xam ne da ngeen bugg jël Kaolack nekk maire bi nan ngeen di faje jàngoro yooyu ñoo xam ne ñooy jàngoro ka Kaolack dëgg-dëgg booy seet jekkoon na lool mu nekk capitalu Sénégal war na nekk sax capitalu Sénégal parce que boo demee ci réew yi nga xam ne ñoo mag dañuy jël fi nga xam ne moo nekk diggu réew mi ñu def fa capital daal am na ay atu Kaolack indil nañu président indil nañu lu mat quatre wala cinq premier ministre donc mënuñu comprendre Kaolack mel toll te Kaolack tamit dëkk boo xam ni dafa international tey boo demee Nigéria dañ la naan Kaolack Kër Baay nga dem Ghana ñu wax la Kaolack Kër Baay nga dem Tchad ñu wax la ko nga dem Darfour au Soudan ñu wax la ko donc Kaolack am na benn stature internationale boo xam ne war nañ ko delloo gëdd bi lu am solo la loolu tamit dañ koy war a wax ñu dégg ko bu baax donc loolu yëpp moo waral ñu toog ñun ñëpp di waxtaane Kaolack même bu fekkee ni d'accordu leen bokku leen ngeen kii di waxtaane Kaolack loolu la ñuy wax démocratie délibérative di waxtaane développement di waxtaane nan la xam ne danañu wutal ndaw yi liggéey waaye bañ a considérer Kaolackois bi comme électeur considérer Kaolackois bi comme électeur mooy ah man de maa ngi fii institution sociale ambulante la may ngeente may takk may def lii déedéet dañu bugg développement tëgg ni ñuy développer yeneen capital régional yi ñu développer ko Kaolack ñun ñu mun a am te mën na ne lu Kaolack du ville boo xam ne ville bu pauvre la ni nga xam ne waxee nañ ko pour Casamance waxe ko aussi pour Ndar dinañ dem waxe ko aussi pour Ndakaaru parce que Ndakaaru dafa fees bay tuuru amatoo sax foo mën a tabax tey boo jëlee ville yu bëri benn problème ngay am te problème boobu aussi dañ koy wax mbeer yi mooy le conflit foncier c'est le principal conflit aujourd'hui ci dëkk boo dem boo demee Ndar ñu wax la boo demee Ziguinchor ñu wax la boo ko ñëwee fii ñu wax la ko dafa nekk nag affaire boo xam ne mbiru suuf war nañu ko xool defar ko parce que mbiru suuf day indi ay fitna yu méttee méttee métti ci biir réew yi dañuy des ba tey ca boobule ndaje waa Oxfam itam nag ñoom dañoo gis ne wàllum nag gouvernance ak doxalin lu ñëpp a la waaye tamit nag dugal cay wàllum toppandi gi moom Thialy Faye ma jiite Oxfam àdduna ci ci micro Cheikh Ababacar Dieng. ñu ngi daje fii Kaolack tey ji ñun waa Oxfam ak waa Afrikajom Center parce que dañoo jàpp ne liggéey bi nga xam ne nii nii moom mooy élection yi di waaj a ñëw ñun tamit ñun citoyens yi dañ leen war a accompagner pour ñoom tamit ñu am ci seen wàll même bu fekkee ne bokkuñ ci parti politique léegi nag lu waral loolu mooy ñun euh, dañoo jàpp ne gouvernance locale ñëpp a ko war di penco euh, warul yem ci waa politique yi kese moo tax ñu choisir dëkk yu mel mel ni Ndar dëkk yu mel ni Ziguinchor dëkk yu mel ni Kaolack Mboro ak Dakar pour ñu interroger leen rek xool candidat yi nga xam ne ñoom ñooy jongante ñoom nan lañ nan lañ fas yéenee yoree mairie wi bu fekkee fal nañ leen ku ci nekk li ngay wax fii ni moom bëgg nañ yaa déglu ci lépp luy gouvernance maanaam budget yow nan ngay def bu ut xaalis bi nga xam ne nii moom ngay yore mairie bi boo amee xaalis ba pare ci lan ak lan nga koy investir loolu am na solo ndax ñun am na secteur yu tudd éducation santé protection sociale assainissement environnement développement yooyu yëpp dafa nekk ci compétence transférées yi nga xam ne nii nii moom lañ jagleel collectivité territoriales yi te boo xoolee ñaare collectivité territoriales yi ñu dem yëpp yooyu dafa xaw a sooxe léegi nag ku ci nekk en fonction de li nga xam ne nii nii moom nga ñuy jox comme programme organisation société civile yi fi nekk ñoom ku ci nekk di nga jóg dinañ def le suivi mooy dinañ leen accompagner d'abord ci seen gestion buñ paree ci gestion ñu accompagner leen ci lépp xam ne nii nii nii nii moom mooy reddition des parce que nag duñ leen bàyyi rek ñu def gestion ba cinq ans ñu laaj lan ngeen fi defoon mais dañuy fexe ba lépp li nga xam ne moom la ñuy def mu jot ñëw wax leen lan geen jot def lan moo des ak lan lañ war a yokk ak lan lañ war a wàññi donc loolu yëpp fas yéene nañ koo def ak ñoom waxtaan ko ñoom tey jii nii nii ci forum bi table ronde bi nga xam ne moom la ñu organisé fii ci Kaolack. xabaar yi bitim yegg si euh, nañu nag ci ñaareelu xaaju euh, xibaar yi xibaaru bitim réew Alioune Badara Diop ana foo koy dooree. xibaaru bitim réew dañ koy dooree fi nga xam ni mooy diwaanu male ginnaaw xiiroog ngaayo bi nga xam ne jot nañ koo nemmeeku ci jënt bi ak li nga xam ne mooy la CEDEAO Mali moom jot am ay daan yu métti jëmale ko ci li nga xam ne mooy yenn ci ay sanctions ba tax na kat li nga xam ne mooy la CEDEAO moom moom la dóor na ci taabal bi ngir kat banque bi nekk ci centre. réew yi nga xam ne ñoo nekk ci Afrique sowu jant mi ngir kat ñu mën a tëjandi li nga xam mooy frontière yi jëmale ko ci yenn réew yi nga xam ne ñoo nekk seeni wet ba tax na ñu ne kat dañuy jéem a def retrait yenn ci ay ambassadeur pression bi nga xam ne dañ ko doon faral di nemmeeku ci li nga xam ne mooy juntu boobule transition militaire bi nga xam ne dañ ko doon faral di séentu ci juróomi at wante mbir moom la dañ ko mujj dellusi ci li nga xam ne mooy ñeenti at. xabaar bitim réew. desandi ba tey fi nga xam ni mooy euh, diwaanu Mali wante dañuy waxaat ci li nga xam ne mooy euh, rappel russe ci li nga xam ne mooy euh, wàllum ambassadeur ak li nga xam ni mooy wàllum tëjum frontière yooyu de ba tax na jën bu malien moom moomu lay jot na riposte maanaam ŋàññe li nga xam ne mooy yenn ci sanction yi nga xam ni CEDEAO jot na ko ko teg ba tax na kat ñu ni poste ambassade boobu noonu dañ ko war a dellusiwaat ci li nga xam ne mooy yenn ci réew yi nga xam ne ñoo nekk ci seen i wet ci noonu Mali moom mu ngi la ni dina tëj bépp frontière boo xam ne daf koy jëmale ci wàllum suuf gi ak wàllum jaww ji jëmale ko ci réew yi nga xam ne ñoo bokk ci fi nga xam ne mooy CEDEAO bi xabaar bitim réew xibaaru bitim réew dañuy dem ba fi nga xam ne mooy Guantanamo ginnaaw ñaar fukki at yoo xam ne dañuy faral di nemmeeku ay métital yoo xam ne koy faral di tekk ñi nga xam ne ñoom la caabi féete ginnaaw ñaar fukki at ci loolu ginnaaw bi ñu jotee am yenn ci ay détenus maanaam ñoo xam ne caabi dafa leen a féete ginnaaw fi nga xam ne mooy Guantanamo nekk ci centre bi nga xam ne mooy Amérique du Cuba fanweer ak juróom-ñeenti doomu aadama yoo xam ne caabi jot nga xam ne mooy moomulee mu ngi kaaskat jëmale ko ci àq ak yelleefu doomu aadama yi. xabaar yi. bitim dem ba fi nga xam ne mooy diwaanu Italie wante dañ koy door président parlement bu européen di ki nga xam ni mooy David Sololi moom moom lee moom ñàkk bakkanam italien bii di David Sololi moom moom la nekkoon président parlement bu européen nekkoon ko ci atum ñaari junni ak fukk ak juróom-ñeent moom moom lee moo ñàkk bakkanam ci guddib altine jëm talaata bi muy génn àdduna mu ngi am juróom benn fukki at ak juróom ki ñu xamal lu ñu mel di porte parole boobu lee ginnaaw bi mu tëddee tëddaay toogaay bu yàgg buy tollook fukki fan ak juróom ci réew moomule loole waral ñu dakkal bépp activité jëmale ko ci diwaan boobule. xabaar bitim réew. xibaaru bitim réew dañ koy jeexal lekk li nga xam ne mooy projet attentat bi nga xam ne moom la ñu dëbboon ci fukki fan ak ñett ci weeru novembre bi ñu weesu ki nga xam ne mooy Salah Abdeslam moom moom le jot na ab procès boobu la nekkoon ci fukki fan ak ñett ci weeru novembre bi ñu weesu ginnaaw ci loolu ki nga xam ne mooy Salah Abdeslam moom moom la yëgle na ñi que ni dafa amee li nga xam ne mooy Covid 19 maanaam di mbas mi ba tax na dina jëlaat li nga xam ne mooy ay activités ba tax na dina teewe yenn ci ay audience yoo xam ne dinañ ko faral nemmeeku ci bés yi ñu jëm soxna ngoon yi fii la ñuy jëmandi ci li nga xam ne mooy xibaaru bitim réew. xabaar yi bitim réew. bak euh, bangook xabaaru euh, tàggat yaram Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ngone Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu mbokku auditeurs yi di la jàmm di ko sàkk ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy dooree ak football Coupe d'Afrique des Nations ca Cameroun démb bëccëg bu njëkk ci group D bi nag nigeria dafa bett Égypte daan ko benn bal ci dara kenn ñu ko defee woon ca atum 2019 ci groupe E bi nag tenant du titre bi nga xamante ni moom mooy Algérie moo bett ñëpp ndax réew mi di Sierra Leone woon moom moo ko teg dënd ñu mujj def ab match nul ndam demul la ndam dikkul la ba jogante bi jeexee sax kii di Jamila Belmadi doon na xuloo ak taskatu xibaar yi ndax yenn laaj yi nga ko doon laaj daf ko mujj naqari tey bu benn waxtu jotee nag ci groupe F bi Tunisie mooy laaleeg Mali derby ouest africain diggante Mauritanie ak Gambie lay doon Guinée équatoriale ak Côte d'Ivoire ci groupe E bi lay doon bu juróom-ñaari waxtu jotee ñu dem ci la dëkk Europe demi-finale League Cup retour tey Tottenham di laaleeg Chelsea bu juróom-ñaari waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak xool fukkeelu bëccëg bekk juróom-ñett ca Premier League ca Angleterre West Ham di laa lekk Norwich ci bu juróom-ñaari waxtu jotee demi-finale Super Coupe d'Espagne Barcelone di laa lekk Real Madrid bu juróom-ñaari waxtu jotee finale Super Coupe Italie Inter Milan ak Juventus bu juróom-ñetti waxtu jotee lay doon huitième de finale Coupe d'Italie Atalanta Bergame di laa lekk Venise bu benn waxtu jotee ba tekk fanweeri simili équipe nationale bu Sénégal xel ma ngay gën di dal ndax ñi nga xamante ñoo amoon na variant Omicron bi ñeenti football kat daal di nañu wër ba door li nga xamante ni moom mooy seeni entraînement basketball championnat saison deux mille vingt et un deux mille vingt deux tirage bi nag jëm ci pool yi amal nañu ko championnat bi nag des na ko amal si ñaari groupe moo xam ci góor ñi ak ci jigéen ñi ñaari pool yoo xamante ni bu nekk def na juróom-ñaar ci jigéen ñi AS Ville de Dakar Saint-Louis basket club Jaraaf basket club Dibalok CMT bu Ziguinchor AS Bopp Guédiawaye basket club bu dee nag ci groupe B bi Duc moo fa nekk ISEG ASFO Jeanne d'Arc bu Dakar UGB Mbour basket club Flying Star ci góor ñi nag fukki équipe ak juróom-benn fas yéene xëccoo li nga xamante ni moom mooy titre bi ñu tas leen ci ñaari groupe ñu jóge ci parc yi nag dem ci arène bi jeexale ko ak lamb bëre dóor nag dem janoom ak taskatu xibaar yi kenn ni ko naataangoom bi defee woon Ama Baldé dem nag ñëwaat na ci combat royal bi war a dox ci digganteem ak kii di Modou Lo Ama Balde ci micro rajo Alfayda. war jàmmaaroo jàmmaaroo bu neex a neex bu neexee yàlla incha allah. jërëjëf président maa ngi Pikine xam na toog Pikine di préparer la ma tax a jug man maa ko waxoon dana ma séntu woon ma ne moom lu mu yàgg yàgg nit ñi bëri assumé naa loolu yëpp ne pare naa wax dëgg yàlla lépp lu mu laaj rek maa ngi si bu neexee yàlla pour affronter Modou Lo incha allah bu soobee yàlla lépp pare naa xale bu ndaw laa tamit <laughs> pare naa baax a baax maa moom mos nañoo naa Modou Lo bu baax a baax wax dëgg yàlla musuma tëdd ne maa mun Modou Lo waaye ma rafet naa si njot bu baax a baax dinaa doon waa des incha allah ma ngoog Ngoné Ndiaye gannaaw ba la ñaanalee kandaa yu jàmm li ma gënoon a fës si xibaaru tàggat yaram yi jaa ngeen jëf li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf li gën a fës ci yéene kaay yeeg El Hadji Seydina Omar Cissé ah, ah. ahlan bikum mbootaayu réewu Afrique sowu jant yi ñuy wax CEDEAO beddi gi ñu beddi réewum Mali seppi ko embargo ko baaxut ci réewum Sénégal de te mooy yéene kaay na rawatina frontière yi ñu te kenn du dugg Mali kenn du génn fa nar a gàllankoor koom-koomu Sénégal yaw seetal xanaa xamuleen na ci benn at ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeenti ci ay milliards moom la Sénégal di xam ci jëflante ak réewu Mali Walfadjri yéene kaay dëggal ko ko biñ tëjee frontière Sénégal ak Mali na fi mu toll nii li askanu Sénégal di dundee njëg li fa yokk fi mu toll nii ah lu bëri Mali lay bàyyeekoo de xanaa xamu leen loolu la mu xam ba wax ñu ko moom vox populi mooy ne njiitu réew bu France fa nga mel ni ku leen dimbalee ak a ñaawal naan leen gat sa ñuy amal sax réunion ñun mbootaay réew Europe yi ngir jàppale daan yooyu ñu teg seen kaw Demba Moussa Dembélé ci vox populi ne lii mooy gàcce dëgg nag laas yéen a na ko weesu na gàcce suñu réewu Afrique yi ñi ñu jiite suñ président yi meexute dégg waaye tubaab yi lañ fi nekkal lu leen tubaab yi sant ñu def def Alioune Tine ci le a kaay ne man Macky Sall laay waxal lii bu seetaan mu jàll enquête yéen a mel ni ku naan ko Macky Sall fa cee mën dara moog yeneen naataango président Afrique yi lu France wax tubaab yi rek moom la def même bu leen di gaañ sax amuñ sañ-sañu bañ ndax moomuñu seen bopp tubaab yi leen fi teg su fekkee bëgg ngeen gis ku jàppale réewu Mali ci daan ñu ko teg du kenn ku may président bu Russie na ko teggi si jamono jooju yi ak Amérique ñoom d'accord ba dina amal ca mbootaayu xeet ya ngir càmbar li ni mel li jënti ko l'observateur mel ni ku naan leen su yeboo ngeen gaaw de gis ngeen lii su yàggee xaw ma kan waaye Sénégal moom fa ñuy xam ay jafe-jafe waaye tamit opérateur économique malien yi nekk Sénégal ñoo gën a jommi ñëpp jaaxle lañ def yow seetal bërki démb lañ tëj frontières yi fi mu toll ni ñàkk nañ ay millions yu bari te réewu Mali askan wa la ñuy dundee téeméer boo jël juróom-ñett fukk ya ci pooru Dakar bi lay jaar dem fa kon buñ tëjee frontières yi du lu leer ba mel ni jant tusubaar mooy ne fitna rayante tuur deret tàmbali na ci campagne élection locale yi turbine yéen a kaay moo ñu ko xamal Kaolack ndangaan fitna ja tàmbali na ci local yi daa nga reyante naka noonu diwaanu Ziguinchor diwaanu Mbuur ak diwaanu Ndakaaru nit ñu ponkal ñu rëy ñu ngand ñu tal ñooñu ñuy wax ay maire bi ñoo soobu tàmbale yee fitna ba tax gaa ñaa ngay sànni wante xeer fa ñuy fëggante ay kurpeñ fa ñuy génne paaka ba ca jaas yi a kaay bi ne lii baaxul nañ ko dakkal campagne ku nekk am nga sañ-sañ far fa la neex waaye jarul fitna le quotidien yéen a kaay ne wala ngaan ci campagne bi rayante baa ngi mel ni tulleeg màlle diggante yeewi askan wi ak benn bokk yaakaar yow seetal juróomi nit am nañ ay gaañu-gaañu ca diwaanu mbuur ci ab jàppante ñaar ña ñi nga ci diggante dund dee waa léegi ñooñu buñ dee fa ñuy perte seen mbokk perte ndax ña ñuy campagnal jaruñ ko l'évidence yéen a kaay ne diwaanu dagana tamit xeex fitna moo fa amoon farandoori Umar Saari nag lañ ca joxoon baaraamu tuuma na ñoom la waa grand place yéen a kaay ne Sénégal yëpp war nañoo xool ci diwaanu Tëngéej ña ngay campagne te amul benn fitna yow seetal candidat nekk ca benn bokk yaakaar ak ñuy dajee ca mbedd ya tali ya yëkkati wante loxo tàcc wante ku nekk naan sa waa Tëngéej bu rafet ngir bu jiitee mairie bu ndakaaru suqali ko du kenn ko mooy soxaam war lii yéen kaay moo ñu ko xamal direct news na ko hee procès bu rafet wala programme bu baax kaay ma la benn Kaolack ndangaan Pape Mademba Bitèye programme ba mu teg ca kanam Kaolack waaye moo waa bennoo ya xam nga nuñ ko tuddee 1992 1 programme bu njëkk ba mooy juróom-ñeenti accès ba mooy engagement yéen jël fii juróomi at ngir suqali diwaanu Kaolack yéene kaay bi na Pape Demba bi tey nag ku social la liggéeykat la te bëriwul wax critique yéene kaay dëggal ko ne Pape Demba bi tey wax na ak askanu Kaolack nañ ko nar a suqalee ni démb ci mitin bu mag mbooloo mu bëri bay tuuru rombat ca diwaanu Kabatooki mitin sonal Pape Demba bi tey fa wàccee Kabatooki direct news ne conseil

wàccee leer leneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy na autoroute à péage ba am na fa ab accident de xaw nag daal nag moo fa tëbee ca ab camion waaye ba mu daanoo jógut de ma nga ca diggante dund ak dee donte askan waa ngi koy jéem a xettali ña ñu war a xettali dëgg dëgg dëgg nag mooy ay soxna yoo xam ne fa ñoo am jëkkër ndeysaan te ñoo togg l'observateur moo ñu ko xamal yow seetal jigéen ñoo ñu am jëkkër te mënuñoo togg neneen sonn nañu de ndax goro ya jigéen jëkkër fañ leen léeg-léeg sax seen jëkkër yi seen bopp ñoo leen di toroxal di leen rusloo ci kanam seeni nawle ana jànq bi na andi añ bi comme sama jabar mënta togg añ wala xañ ba suur ci kanam mbooloo ma nga ne ceeb beeka neex jànq bi wala sama rakk ji jigéen ji ak mën a togg wute naa ak sama jabar ji nga xam ne xamul njëriñ ci kër gi su ko defee soxna sax gàcce di ko bëgg a rey yéene kaay bi na am na si ñoo xam ne sax fa ñu dem ba mënuñ koo muñ ñu ñaan baat wala sax seen jëkkër ya ñoo leen di fase ndax ñàkk mën a togg waa wax dëgg yàlla jigéen fa war a mën a togg ñàkk mën a togg nag gàcce rawut ko ci ponkalab jeeg na léng te dara ko nag xale yu jigéen yi fa ñuy nekk jànq bu leen seen yaay waxee kaay leen ci wàññu ñu daw jël sañse def ko liggéey sinap soo waxee ñu ne fa ñuy defar ba mu baax xanaa defar ba mu bon kay li ma leen di digal daal yéen góor ñi ku ci am jabar ju mënta togg jànq ba mbindaan ba mën a togg lool takkal mbindaan ba ngeen defar ba mu baax waaw waaw li ci euh, yéeni kaay yi Shukran El euh, euh, ponk boobee sax nag mooy ndax képp xabaar yi ci rajo bi waaye nag xabaar yi day wéy jamono bu ne ci w point radio alfayda point net jaajëfal nañu xarale yi ak it waa rédaction euh, ci euh, jàppandal di ànd ak sunu ay programme ñaanal nañu leen te di ko sàkku euh, mucc ak muccule jàmmi biir ak biti tawfiq ak taysir jaa ngeen jëfati Le journal